Parfois, quand on parle d'aménagement du territoire, j'ai l'impression que mm -hmm. euh, ce qui s'est fait sous, sous Abdou Diouf mm -hmm. ressemble plus à la dynamique d'aménagement euh, du territoire que ce qui a été fait su wadd ak su sous Macky parce que su Abdou Diouf mhm. euh, amoon na euh, benn spécificité mhm. euh, bu territoire yi am par exemple euh, le bassin arachidier on sait que fii bu ñu fi implanté mhm. ay ay industrie agricole euh, de transformation dañ fiy installé on, on savait que Casamance li lañ fi war a def aujourd'hui affaire bi dafa dafa éclaté kenn région yi amatuñu presque identité tellement raison xam nga ban homme politique moo njëkk def la connexion entre l'industrie et l'aménagement du territoire c'est Mamadou Dia le premier homme politique bu institué dans dans notre planification qu'il nous faut faire le lien entre notre processus d'industrialisation et l'aménagement du territoire moo ko a def et dans le livre on le rend hommage on lui dañ koy rendre hommage pour cette vision là dès le début mu comprendre ne que c'est depuis les ressources spécifiques d'un territoire daf ko wax dès le début voilà différence yi moo moo tax man au bout de set huit mois avant même que Bamba Dièye di dem élection municipale Ndar ak tout ce qui s'ensuit man dama ñibbi. mais xam nga boo ñëwee parce nag xam-xam bokkul ak pexe. mooy suma slogan bi may wax. mais mais mais mais est-ce woon gën a conciliant. Hmm. nga am patience tuuti. Hmm. parce que boo ñëwee nga jël réew. Hmm. Euh, Macky Sall, il arrive au pouvoir en 2012. Mhm. Les données, euh, les, les, les données macroéconomiques sont au plus bas. Mm -hmm. On a eu presque deux ans de crise. de, de, de, de, croissance. Mu ñëw mu fekk des urgences euh, problème mu Sénélec euh, plan plan tàkkal euh, comment comment tenir euh, nu mu le financement de la campagne Euh, agricole mu fekk des des des urgences ensuite mu bëgg ñëw imprimer sa marque euh, pour faire oublier l'empreinte de de de Ablaye euh, parce que c'est à partir de 2015 la ñu élaboré le document relatif aux politiques d'aménagement mm-hmm. est-ce que mm, urgence bi du woon mu rectifier wut ay wut ay ressources et puis doog a et d'ailleurs boo xoolee l'envol euh, des politiques économiques de Macky Sall wala ce qui a fait son bilan bi mu présenté en 2019 euh, le moment clé c'est 2015 non, c'est 2015 2018 d'accord euh, regarde xam nga Macky Sall bi mu ñëwee et souvent les nit ñi dañ koy wax ne dafa ñëw fekk fi situation bu catastrophique nañ waxante dëgg demewul noonu Ablaye Wade bi muy jël pouvoir bi l'endettement du Sénégal était à cinquante quatre pour cent Ablaye Wade dafa baissé endettement bi ba trente quatre pour cent c'est-à-dire que en onze ans Ablaye Wade dafa baissé dette bi cinquante trente. non Ablaye Wade dafa ñëw bénéficier de l'initiative PPTE. déedéet. taxawal rek. dafa ñëw bénéficier de l'initiative PPTE. Euh, ñu dette bi baissé drastiquement Ablaye Wade bi muy dem dafa yéegaat. Et à l'époque, le débat sur la dette avait déjà surgi. Mm -hmm. Si. bi ma bi Macky di yegg si endettement wu 34 pour cent la fi bi muy bi muy ñëw endettement wu 50 et quelque la fi fekk kooku mën nga ko vérifier non ba noppi la moo bénéficié. Diouf moo bénéficié de l'initiative PPTE Wade n'a pas bénéficié. au contraire Wade. bi muy dem il a laissé un taux d'endettement très faible. il il est 2000 Wade bi muy egg c'est plus de cinquante pour cent kooku je l'ai revérifié avant de venir ci émission bi bi muy dem daf fi bàyyi 34 pour cent loolu la fi bàyyi ba noppi non seulement il a fait ça mais déficit commercial bi mu fi bàyyi en 2012 c'est moins 1700 milliards et quelques ba noppi Wade a eu l'intelligence a travaillé de sorte que sur ces 11 ans il a maintenu un taux de croissance moyen de 3.2 sur sur 11 ans et taux de croissance boobu dafa am impact boo xoolee indice développement humain nga xam ne ça mesure l'éducation la santé et le niveau de richesse Wade a permis au Sénégal d'avoir une progression de 0.8 sur 12 sur 11 ans Macky Sall sur loolu la hérité dafa ñëw fekk réew mu nga xam ne am na benn capacité d'endettement bu mu am parce que il est à 34 ñëw na fekk déficit commercial bu nga xam ne c'est à un milliard 7 déficit ba noppi bi budgétaire ba noppi non commercial. déficit commercial non déficit déficit commercial après avec. un déficit avec euh, budgétaire voilà ba noppi fekk fi benn au moins indice de développement humain bu nga xam ne chaque année ñu ñu gagné un un un 0,9 un 0,09 Wade a fait 0,8 sur sur 11 ans mais Macky Sall depuis bi mu fi toogee léegi il a dépensé près de 50 000 milliards te 50 000 milliards yi les 15 mille dette bi la ko jëlee donc dafa utiliser la marge manette ou endettement da ko utiliser à fond on est à plus de 73 pour cent mais mais xam nga attends xaaral et les deux résultats yi nga xam ne c'est sur ça qu'on le juge suñu déficit aujourd'hui nous sommes à 2400 milliards plus 740 milliards c'est-à-dire que aujourd'hui nous importons plus de 5300 milliards pour des exportations à 2400 milliards. On parle du déficit commercial. Déficit commercial. Alors qu'il nous dit, j'ai pris cinquante mille milliards je l'ai investi dans le dans nos politiques sociales et nos politiques économiques pourtant d'un point de vue économique balance commerciale bi dafa creuser wu gravement et pire encore boo xoolee indice développement humain là où Wade a fait une progression de 0,8 sur 11 ans Macky a fait du 0,4 sur 11 ans Diouf avait fait du 0,3 sur 11 ans. Diouf c'était difficile. mais au moins il a fait du 0,3 a fait un point de plus que Diouf Wade a doublé le résultat de Macky voilà les chiffres. te lii ma la wax ni je défie kii. ku